Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. waaye boo ko xoolee ba ci biir da ngay xam ne li waa Sénégal doon jeex ba indi ñaari alternance yi dafa mel ni dajaguñu ko gisaguñu ko moo tax ñu jàpp ne am na loo xam ne waa Sénégal ñu ngi koy xaar te li ñu xaar mooy changement boo xam ne bu ñu ko defatee. changement boobu dëppoo ak li nga xam ne dëgg-dëgg moom la waa Sénégal di xaar waaye du fal ab président ñu teg ci ñetti weer wala am at nit ñi commencé di sos ay association rëccu wala leneen yoo xam ne dañuy jàpp ne ñoom la ñu def dañoo juum te li ko indi lu simple la mooy nun waa Sénégal duñu fal duñu dañuy folli du ñu xool kan la ñu war a fal dañuy xool rek bu fekkee ne dem nañu ba mbir mi doxatul neexatuñu ñu ne kii fi nekk na randu waaye ku ñëw baax na te léeg-léeg boo ko defee mën ngaa daanu ci koo xam ne kii du dëppoo ak li nga xam ne moom nga doon xaar moo tax ñu wax ne Sénégal li mu soxla tey nekkul nga jël kii randal ko teg kee mu ñëw du def la koo ko doon def wala mu def lu yées la koo ko doon def waaye Sénégal li mu soxla mooy li tubaab di wax alternative maanaam xeetu doxalin boo xam ne nit ka nga fi jël nit ka nga teg da nga koy càmbar xool ko ba mu wóor la ne kii boo ko dénkee réew mi njëriñu réew mi ak lu jëme réew mi kanam rek moo koy tax a jóg moom ci lay yëngut guddi ak bëccëg loolu moom mooy doon ay préoccupation mais su fekkee ne randul ma toog la te boo toogee di def la sa waay doon def wala ngay def lu ko yées yaakaar naa ne danañ fi yàgg di def ay alternance di weccee mu nekk ay mbiru doom baay nga xam ne daanaka nit ñi dañuy xëccoo rek naka la ñu jiite naka la ñuy jiitele ñite jiite seen kër baay waaye duñ fa indi benn coppite bu ñu ñëwee dañuy noot nit ñi di wane rek ne léegi man maay ndono li man maa yor mbir mi lu la neex nga doxal indi say mbokk indi say am di jàmm te loolu dawut loo xam ne lii dana jëm am réew kanam loolu moo tax ñu wax ne nun alternative weneen xeetu doxalin beneen xeetu tànnin ba nga xam ne bu ñu sañoon waa Sénégal danañu yeew xoolaat seen bopp ba nga xam ne ki nga xam ne mooy doon cinquième président bu Sénégal buñ ko falatee nit ñi wax ne ah ku mel nii de wax dëgg yàlla waroon nañ ko te yàgg am loolu nag jàng bay par parloo te xool ñoo xam ne véritablement li ñu soxla ci réew mi mën nañu ko loolu rek a mën a tax ñu am ko loolu moom moo waral ñu taxawal coalition bi coalition bi wax nañu ne am na lu toll ci fukki parti politique am na ñeneen ñoo xam ne ñëw nañu wax ne dañoo bëgg a bokk waaye comme dafa am benn charte boo xam ne dañ koo tëral te nit ki balaa bokk foog mu jàng charte bi ba ne ànd naa ci moo tax ñooñu wax nañ leen ne danañu wootewaat bu ñu wootewaatee am ndaje danañu toog ñoom ñu jàng charte bu euh, charte bi bu fekkee ne dëppoo na ak seen gis-gis ñu integre leen ñoom itam ñu bokk ci coalition bi bu loolu paasee wax nañu ci mbiru parenage bi ndax nun dañuy bokk ci élection présidentielle coalition bi li tax ñu tabb ko mooy participer ci élection présidentielle yi ci kaw loolu coalition bi dafa fas yéene am candidat bu amee candidat loolu du dàq nag ñu waxtaan ak yeneen candidat yi nga xam ne ñu ngi xëccu réew mi te bëgg cee jot te jàpp na itam mbooloo mooy doole te xëy na bu ñu nit ñi booloo doole boole doole yi ci la ñuy ëpp chance li nga xam ne moom la ñu bëgg ci réew mi ñu am ko ci kaw loolu am na ñoo xam ne tey jël nañu contact ak ñun am na sax ñoo xam ne jot nañoo daje ak ñoom am na ñeneen ñoo xam ne jël nañu contact ak ñun dinañu waxtaan ak ñoom mais ku ñuy waxtaanal mbiru programme lañuy waxtaan réew mi lan lañ fi war a doxal lan lañ fi war a dindi lan lañ fi war a wàngañ lan lañ fi war a soppi loolu bu fekkee ne nit ñi waxtaan nañu ba am ci loo xam ne déggoo nañ ci wàllu programme bu keroogee xëy na ab déggoo mën naa am ànd mën naa am mais dafay doon loo xam ne fu ñu taxaw ci kanamu waa Sénégal du ñu rus mukk ndax def ñuy bir ne lii ñu euh, ak d'accord ak ñii loolu dëppoo na ak li nga xam ne moom mooy njëriñu waa Sénégal. ci kaw loolu nag koo xam ne da ngaa bëgg a participer participer ci élection ñu toll ci période parrainage il faut que nga soobu ci parrainage bi moo tax jël nañu formulaire parrainage bi parti politique yépp dugg nañu ci biir réew mi wax nañu léegi am na ñoo xam ne teewuñu ndax dafa am ay mission yoo xam ne dañu koo doxe woon ci biir réew mi moo tax teew si wuñu tey ndax ñu fexe ba li parenage bi laaj ñu def ko ci diir bi nga xam ne moom la texte yi préwar donc ñu ngi ci parenage bi ci biir réew mi te ñu ngi woo itam képp koo xam ne kii yoon wii nga xam ne moom la UADC waaw taxawal bëgg euh, juboo na la jub na jubu la nga xam ne lii moom moo war a génne Sénégal ci jafe-jafe yi mu nekk foo mën a toll na nga jël contact ak coalition bi pour mën a participer ci ñi nga xam ne ñoom ñooy collecter pour le parrainage loolu mënoon nañ ko ci wax ci mbiru parrainage bi am na lu luñ fi laaj ne euh, ndax euh, mënu leen a seet opposition traditionnelle bi ngeen ngeen fekki leen nun dañu wax ne amuñu exclusive xam nga tey dañoo war a dem ba nga xam ne réew mi dootul doonati réew moo xam ne ñaar wala ñetti parti ñaar rek ñoom ñoo fi mën a jiite ndax fekk nu ngi def loolu te nga xam ne 1960 ba 2000 parti socialiste moo jiite woon 40 ans mu jiite en 2000 ndaw ñi wax ne le changement ou la mort en 2012 Ablaye Wade bi nga xamee ne jël na pouvoir bi en 2000 bi ñu yegsee 2012 lan la waa san ñu bëri wax tout sauf Wade looloo fi amoon donc dafay tekki ne affaire bi boo nee euh, opposition traditionnelle il faut nga xool opposition boobu ban la parce que bu dul loolu xeex nit wala nit neex la mooy tax nga ànd ak nit te li ñu soxla mooy nit ñi ànd ci kaw programme xam ne programme bii njëriñu Sénégal la ñu ànd ci loolu loola nag mën naa nekk ci opposition bi euh, ngeen wooy opposition traditionel comme mën naa nekk ci opposition bi nga xam ne du opposition traditionnelle par exemple opposition boo xam ne mësula bokk ci gestion du pouvoir loolu yëpp mais nun dàquñu kenn koo xam ne kii mën nañoo waxtaan ak yow ba d'accord ci wàllu programme danañu waxtaan ak yow bu fekkee ne d'accord nañ ci wàllu programme ñu déroulé ko te di sàmm kàddu ba nga xam ne lépp loo xam ne waxante nañu ko ak Sénégal bu ëllëgee bu ñu xoolee suñu bopp ci seetu duñu rus anele rek foofu laay yëkkatee euh, que moom bu xoolee boppam ci seetu du rus ndax dañu war a jàpp ci réew mi ñu ne que kilifa gu nekk njiit gu nekk war na jàpp war na moytundiku ñetti mbir war na moytundiku jéppi boppam war na moytundiku askanam jéppi ko war na moytundiku yàlla jéppi ko ñetti yooyu njiit gu ko làmboo ku nekk di nga liggéeyal sa réew